salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di jëfal bu baax Abdou Aziz Ndiaye géwél bu Suluuse jàkkaarloog tey kilifa gu mag bu ne kilifa gu mag nag ñooy taalibe la jàmbaari Cheikh Béthio la waaye jàmbaar la joo xam ne président Macky Sall daf ko wóolu muy acteur politique bu mag mooy présenté boppam ndax boo boo ne ko jàkk xam ni doomi réew mi la du juddu jéeri du mbadantaan tey nag am bis bu mag bu nu ko dippee ñu ne Malick Diabou Seck ñu ne Saint-Louisien bu mag bi Lamour kafe mu fay def nag programme bu mag ne kenn rek laa ko dippee muy jàmbaari Serigne Saliou ji maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay sama mag sama xarit euh, wax dëgg yàlla di kontaan tamit euh, ci gise bi ak ni mu demee <laughs> di bëgg lool ci li ñu war a waxtaanee euh, di nuyu Sénégal di nuyu àdduna di nuyu ñu seetaan yëpp. ndax sama mag bii moom euh, su ma tuddee bés dañ naan dafa dolli rek li muy def ci suuf moo ëpp loolu waaw comme ni ñu ko waxee rek muy sunu kilifa Cheikh Abdoulaye Thiam nga xam ne yonent bi lépp luñ ko def moom ni mu def yonent bi moo tax ku ànd ak moom ndeysaan da ngay bëgg yonent bi boo suñ ko tuddee sax nga nga jooy ndax moom dañ koy gise rek nga xam ne moom yonent bi dimbali na ko te mu nekk nit ku baax defar ndaw ñu bëree bëri bëri bëri bëri wax dëgg yàlla ndax àdduna xam nga lan moo ci nekk mooy bëgg sa bopp kon soo bëggalee nit keneen muy mu yonent bi nit yi dañ lay génn a bàyyi xel te kilifa la boo xam ne moom jëf lañ ko xamee xamee wuñ ko ay wax te moom moo ma boole ak kii mu nekk sama mag ñu koy ñaanal sunu borom defal ko jàmm di ko ñaanal waa fondation Kër Rasoul yëpp kon loolu moo tax bés bi maa ngi ci woo waa Sénégal di ci wow àdduna di ci woo waa BAS yëpp di ci woo waa commune Tivaouane Peulh ñàgg ñàkkurop di ci woo waa Kër Massar bàyyiwuma kenn fépp fu BAS nekk rek maa ngi lay woo ci bés boobu ñu ñëw ànd kook suñu mag ngir eh, eh, mbégte bi nga xamante ne am na ko boo tuddee ñu bés boobu ñu ñëw ànd ko ak moom ndax nit nag bés bu bu demee ba di la tuddee bésam romb nañu bëri waaw fonkeel ak yëgeel xoolul ci man dara moom dafa xool ni dafa ma war a tuddee sama cër la mu jox ma ko kon maa ngi ciy woo ñëpp. waaw dafa mel ni am na fekk naa fi ndaanaan tamit defe naa ne ci kanam tuuti dinaa ñëw ci moom ci ay témoignage ndax nee ma Abdou Aziz li Bassirou du def bu ma tabaxul jàkka yi dinaa peinture jàkka mu mel ni nag otoraay bu jubee gaar day corné. sëriñ Saliou la def ni nga mel. teral na la waay. te sagal na la ku ñu mësa woowe ndaanaan ndiki doonoo ko waay ndaanaan laa ngi nii nag ndaanaan ni lay mel Abdoul Aziz asalaamaaleykum mbokki internet Malick Diabou Seck TV mbokki internet Dakar 92 FKR 92 Aziz dama kontaan ndax euh, lu rendez-vous des ku ne xam na ni du rekk ñëw rëkk musique fecc dem c'est au-delà de ça parce que tey waxtaan bi mbaa yëg nga ni ñun dugg nañ ci spectacle bi maanaam le rendez-vous des VIP c'est ça lu sell liy xel ci bopp yi fa lañ koy sottee te suñuy façon spectacle ça se sa comme ça on échange avec le public di jariñante ndax lii mooy defar société moi j'ai l'habitude de dire ni bëgguñu pare fa doy waxtaan acteur de développement la te ci biir loolu laa ko tànnee ndax bu doon rek lu ñuy jëf la amaana ba mu ma jëfalee weesu na at mënoon naa koo fàtte te yootu leneen waaye dafa di jëwriñ yu mel nii kilifa yu mel ni nit ñu mel nii nit ñuy xalaatee nii faw ñu leen di wasaare àdduna di leen jëriñoo ki mënul mel ni moom te am moyens yi di jéem a def li moom ndax kon nag yàlla na yéex suñu titre foncier dëgg buñ fay ñibbi nañ fi bàyyi jëf ju rafet jooju te xam nga ni kat ay jeunes nekk ci yoon nekk ci waar nga taxaw yor li la yàlla dénk suturaal leen ci dimbali leen ci jàppale leen ci ca bañ koy soxla boo wanewul jëmm ji kan ngay wane. alors ñun nag comme yàlla baat la ñu may bu ñu waxee ñu dégguñu bu ñu bu ñu toogee waxtaan ñu dégluñu kon nag ci biir suñu liggéey yooyu la ñuy boole utile ak agréable loolu mooy li tax ñu tànn ci jëwriñ Bassirou Ka muy un citoyen exemplaire Sénégal war koo bàyyi xel àdduna war koo bàyyi xel le président Macky Sall war koo gën a bàyyi xel ndax kat Tivaouane Peulh bi mu bàyyee ko wane na ni ñunkat tey fi mu toll nii duñu des gannaaw ci réew mi tey ku jug Tivaouane Peulh nga bëgg dëkki bul fàtte ni nag Tivaouane Peulh laa dëkk waaw li waral ma dëkk fa moom mii jëwriñ Bassirou Ka moo ma ne kaay sama wet dëkk fii kon nag loolu ma lay gërëm di gërëm di di yóotuwaale maanaam maanaam xaddu yi ak nuyoo Cheikh Mouhamed Abdallah Thiam soppey Seydina Mouhamed bu mag boobu le de la fondation Kër Rasoul moom mi nga xamante ni Basiru taalibi Cheikh Béthio la mooy taalibi Cheikhul Khadim Maam Bamba ngay taalibi Cheikhul Khadim Babacar di taalibi Cheikh Laay di taalibi Boukounta Ndiassane waaye nag ñun ñëpp dañuy daje toog biir fondation Kër Rasoul waaw te bu ñu xasee ba toog biir fondation Kër Rasoul maanaam yonent bi lañ jëbal ndax yonent bi mooy daj dëpp moo dajale ñëpp nee na ku ne jàppal fi nga jàpp ku ne téel fi nga téye mu gën a dëgër ñu ñëw nag daje fii nga xamante ne mooy lan kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon ba tey génnaguñu diine génnaguñu ci àdduna lu koy defar jëwriñ département voie Sénégal gépp a ngi ñi ngi la naan jëf ci coono yi ngay daj ngir ñi ko soxla ngay daw yendaloo fanaanaloo yaa ngi daw ngir ñi soxla ngir ñi nekk ci yitte ngir ñi nekk ci bëgg-bëgg te ku ne war nga xam ne bëgg-bëgg wala yitte wala nga ne ci soxla nit yóor la loxo ndax ku ne mës na say jaar nag war nga xam na mu toll war nga xam neex gi muy neex ci xol kon nag dama naan en route vers le 10 septembre le rendez-vous des bi mais yaakaar na au niveau national et international kenn du présenté Bass te pourtant na mu waroon demee saa demeewu ko waaye ku daw ñëw ku daw ñëw te amul kenn ku muy gàntal Bass bu la waree may bu waree bu war bu waree may Aziz million ma ne ko bas li nga koy may dafa bari day mer xanaa lu ma bëgg a def ci lu baax bu ma ko kenn tere waaw lu may def ci lu baax rek bu ma ko kenn tere man nag mun naa ni may nam defal na ma lu mu defalul animateur Sénégal ndax man dama ko bàyyi la sama bopp euh, mu jóge fii dem ba Gàmbi dem takkali ma jabar ñëw indi teraanga bu ne defal na ma ko bas màkk dong la ma yóbbu waaw kon bu ñuy wax ci mbaaxam mbaaxam am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem xam nga tey jii ku ku suuf ku ku ku dund métit da am yërmande bas dafa dund métit bas dafa xam li ci ñàkk bas dafa xam li ci coono bas dafa xam li ci yeewu bañ a lekk mu koy dund kon kooku bu gisee ku koy dund da koy ñeewantal waaw kon yaakaar naa ni li muy def sax te ñu ko fësal sax dafa bari bas xaru tabaski damay gis parfois ñi bind benn kilifa ne joxe na ay xar bas la muy joxe ci xaru tabaski kenn xamul nu mu toll soo bëggee indi caméra mu ne non non bàyyil bàyyil bàyyil nii ñoo ngi jël bëgguma ku leen filmer booy may nit boo ko wane. comprendre nga yaakaar naa secrétaire am bi xam na li may wax daaw moom moo ma jox xaru tabaski artistes yi mu jox xaru ak ñi nga xam ne ay néew di doole lañ ñi defal xaru tabaski bari na. kooku tey yaakaar naa ni mu ànd ak ki nga xam ne nii nag moom mooy euh, président de la république ba nga koy jàppale. parce que président de la république képp ku koy jàppale li nga koy jàppale mooy xoolal fi nga xam ne nii foofu moo teppeeku nga ñaw parce que président mënul def lépp. waaw boo ko gëmee di ànd ak moom li nga xam ne nii moom moo war yaakaar naa ni moom ngay def waaw yaakaar naa ni bas moom euh, man nee naa ko euh, man nee naa ko yow waliw nga. parce que li tax ma naan ko waliyu la mooy mbaax gi ne ci moom yërmande gi ne ci moom bëgg nit bi ne ci moom bas xeebul kenn xale yi mun nañ koo tardeel bureau 24 heures sur 24 da ngay gis ku nekk day ñëw ku ñëw mu ne la bàyyil mu ñëw lu fekk na jël kon yaakaar naa ni kooku euh, mun nañ ne mun nañ koo wax euh, biñ ne bu ñuy xool l'homme de l'année ki nga xam ne moom mooy def social bi gën a màgg fii ci réew mi yaakaar naa moom mérito ñu nommé ko loolu ma koy ñaanal nag taalibi Serigne si saari taalibi Seex Béthio bi borom njuru borom jàppandal borom xabbaan mbokk ndey Seydi naa cuun man dama naan ko Seydi Ka buuru Bambay dañu daan dañaan daan tànk gor ko seen yi su ma ko waxee loolu dina xam li may wax kon yaakaar naa dama koy ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam wéeral ay cëram waaw bas mbaax gi ci moom ak kóllëre kóllëre gi ci moom rek yaakaar naa dafa bari kon Aziz tey yow boo ñëwee sama kër fekk si bas yokku cere dolli ñeex yow nee naa da nga doon géwél goo xam ne foo fekk mu teppeeku rek nga ñëw sama waaj ji kenn du yow. la am na bis samedi la. jàmbaari Cheikh Béthio du tas yaakaar du xaali xañ waa jaangi waa jaangi samedi la ca Lamour Café ak Bas jàmbaari Serigne Saliou ji kii réew mi wóolu ki social bàyyi jirimi bàyyi bàyyi borom xaru tabaski borom nagu gàmmu yi borom nagu màggal yi borom ordonnance yi eh!